sëñ Mountakha Mbacké dañ koy ñaanal sa borom mu yàgg fi te wér ndax ku murit ku julite la ku baax la ku yaatu la ku muñ la ku taalu bi la waaw. baax rek lañu xam ci moom ak yaatu ak rafet xol ak ree foo ko def seen ngay gis ko muy ree rek yaatal ñëpp yaatal waaw comme ki ñu fi jógee rek dafa ñëw rek toppaat ci seen gannaaw. mooy mooy borom mi kooku wéy juram. dafa gane jamono ginnaaw sëñ bi keroog ba sëñ bi ñibbisee moom la ja baayam la njëkk a gis sëriñ Basiiru keroog la ree làqat ci kaalaam yu tedd yooyu mu ree ba sellam yu tedd ya feeñ euh, daaru mi nam gee ku ko ziyaare leen ba déwén bëggay bëgg rek koo koy borom bëgg mi moo tax dañuy bëgg rek yàlla na fi toog ay atti atti atti atti at barke Seexul Xadiim ci barke maamam yàlla na fi toog at bëri na fi sax koo koy Seex Muntaxa mooy borom mbég mi jërëjëf